Euh, moom la ñu organiser tey nekk na euh, loo xam ne dafay confirmer li ma leen waxoon nii dañoo bëgg a créer cadre boo xamante ne dialogue permanent lay nekk diggante ministère bi ak consommateurs yi et les associations de consommateurs donc euh, di wax ni conso confiance dafa nekk loo xamante ne pilier la ci buy boo xamante ne autour duquel euh, suñuy rapport yi fa lay articuler les rapports entre les associations de consommateurs les consommateurs ak ministère bi euh, di wax ni euh, bi ñu édition bu wees waxoon naa ni sama engagement mooy fexe ba lépp loo xamante ne population bi dinañ ko soxla ci produit ñu am ko waaye tamit mu nekk ay produit de qualité ba noppi mu nekk ay produits yoo xamante ne dafay am euh, prix yi dina stable waaye nag euh, seetlu nañ ni euh, fan yi nag gis nañ ni prix yi yéeg yéeg na donc tamit relation de confiance bi may bëgg sama diggante ak consommateur yi dafay laaj bu yooyu amee ñu am tamit dégoûté bu toll ñu ñëw waxtaan ci ak ñoom di wax ni comme niñ ko waxee nekk na ay raisons yoo xamante ne xëy na dépendrul ci Sénégal te ci présentation ci waxtaan bi mën nañ ci ñëwaat di wax ni tamit li ñuy xaar ci association de consommateurs yi moom mooy relation de confiance tamit boobu mooy tax euh, ñoom tamit bu ñu amee information bi nga xamante ne mooy bi wér ñu mun ko tamit lawal ci askan bi nga xamante ne ñoom lañ fi représenté donc di wax ni euh, thème bi ñu bu ñu choisir pour édition bi moom mooy ci wàllum prix na la ñuy fixer prix ndax bu ngeen xam fàttalikoo Sénégal en 1994 dafa décider nekk su régime libéralisation libéralisation nag boo ko déggee moom mooy prix ñu ngi koy fixer ci marché bi maanaam mu ngi aaju ci diggante euh, offre et demande bi waaye tamit loolu nag terewul dina am léeg-léeg état bi ay décisions yu muy jël. Euh, ci yenn produits wala yenn services yi bu ko laajee pour protéger vraiment consommateur bi donc ci waxtaan bi dinañ ci ñëw largement donc loolu daal laa ci bëggoon dolli vraiment di gën a tàllalaat loxo euh, les associations de consommateurs et les consommateurs euh, pour ñu gën a toujours di waxtaan ba nga xamante ne du am benn jafe-jafe suñu diggante ndax ñun bépp information bu ñu am dinañ ko partager ak ñoom du ñu am nëbboo donc loolu laa leen bëggoon wax di leen di gërëm bu baax di leen sant.